بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يدلس سكتير بيد الدالية والإمام الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله تعالى تنجي تنبلي في ميوحنان وفيت والبدع الحوادث قد دجت ظلماتها والجهر واري الأزند والجهل واري الأزند والدين مطموس المعالم والهدى بيض الأنوق ولقطة لم تنشد والسنة الغراء وقفر موحش ما فيه من هاد ولا من مهتدي ولوافيت ديكنغ يا ابن ناصر والبدع تمر من بداي جمالة البدعة الحوادث يا ويسوسو الحوادث لو الوصف kaashif wasfun kaashifun wasfun kaashif mooy day ñëw rek di gën a leeral ndaxte albidaaw mooy almuhdasatu mooy yu ñu sos alxawaadis mooy albidaaw kon alxawaadis loolu ñu tuddee wasfun kaashif albidaaw nag jamoo ci albidaatu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay xadis yu bari day ñëw di ñu tere ñi jàpp ci ay bidaa bidaa mooy safaanab sunna sunna mooy safaanab bidaa sunna mooy jàpp ci la yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon bidaa mooy jàpp ci la nga xamante ne ni dañ koo sos ginnaaw yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonentam bi daan wax naan iyaakum wa muxdathati al umuuri fa inna kulla muxdathatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kulla bidaatin dalaala maa ngi leen di mooy tondikuloo yi ñu sos maa ngi leen di mooy tondikuloo yi ñu sos ndaxte lu ñu sos ak réer la lépp lu ñu sos ak réer la euh, mu daan wax ba tey ci xadis boo xam ne ni euh, ñaari xadiis benn bi mooy man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp ku jëf jëf joo xam ne ni boo ak li nga xam ne moom la ñu jàngale moom la ñu digle kooku dañ koy delloo beneen bi mu ne man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa képp koo xam ne dafa sos ci suñu diine ji dara kooku dañ ko koy delloo euh, téere yi nga xam ne bind nañ ci bunta bidaa di ko jàngale donte léeg-léeg suñu classe gi dañuy gàttanlu ci bunt boobu waaye bokk na ci téere bu am solo muy ale atisam du ñàkk bés danañ yegg si ci bunt boobu ngir wax ci bunt bunta bidaa ndaxte bunt bu yaatu la neexul wax ci waxin wu gàtt euh, waaye liñ ciy wax rek mooy loo xamante ne ni wuute na ak sunna yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam eh, am na ay tënk yu bëri nag ku dellu ci al i'tisaam bu al imaam ash-Shaatibi rahimahullah bokk na ci téere yi nga xam ne nii jàngale nañ ko jàngale bu yaatu waaye li muy wax ibnu Nasir dikk na te boobu bidaa yi nga xam ne nii dafa sosu xam nga bidaa mooy lu rek kon bu ne al xawaadis mooy li ñu tuddee al wasful kaashif waaw ndaxte al bidaa mooy soso kon bu ne ak bidaa al xawaadis yooyu sosu doo ci déggee ne am na bidaa yu sosowul mukk ci àdduna mu ne xat dajat kukku ne ay lëndamam dajat bi maanaa ishtaddat dujiyatuhu zulmatuhu ak dujiyatu mooy lëndam boo ne dajat mooy maanaam shiddatu zulmati xat dajat kukku ne zulmatuhu zulumaatuha ay lëndamam moom bidaa mooy bidaa tasaaroo na ba ñuul kukk wal jëhlu ta mbir moomu réer waaril aznudi aji xuy la ciy dojubee wala aji tàkk la ciy dojubee waari mooy aji tàkk aji xuy buñ ne wariya zand mooy doju bey bi xuy na al aznu jamono ci azand azand mooy doju xeer yi mag ñi daan taale jëkk almet dañuy wax azand di ko jama azinaat wala ñu naan azand di ko jama al mu ne ibnu naas bi ngay ñëw boobu bidaa mu ngi tasaaroo ñuul kukku fépp réer tamit tàkk mooy réer daal moo fi amoon feeñ fépp nit ñi xamuñ dara seen mbiru diine topp ay bidaa ak yu ñu sos rek wa diinum te mbir moomu diine mat mosul maalimi lu ñu far la ay màndargaam mooy diine moom daanaka doo gis ku koy jëfee ay jeexitalam daa far mooy nga ñëw fii li fi gis ay màndarga loo xam ne day ñëw di xam xamle diine boobu diine néew na doole bidaa sosu wal huda te mbir moomu njub baydul anuqi nenab njor xoll la nee njor xoll mooy tan mu góor wala ay rab yi nga xam ni wala Euh, picc yi nga xamante ne ni njanaaw njanaaw yi nga xam ne dañuy nen ci kaw ay doj yu gudd nga xam ne nen yooyu pour nga yegg fa dafa jafe am na ñu ne nag mooy al anoq lim ci jublu mooy tan mu góor xam nga tan mu góor du nen kon bu ñu waxee ne baydul anoq mooy lu jafe rek ba nga xam ne mënta am loolu rek la ci jublu mu ne nag wal hudaa njub moom baydul anoqi tenab njor xoolu la maanaam nenab njor xoolu la wala nenab tan mu góor la Euh, mooy njub boobu dafa jafe ba mel ni tan mu góor nga gis ab nenam kon di njub moom pour nga gis ku nekk ci yoonu njub te mooy yoon woo xam ne dafay tegu ci alquran waaye tegu ci sunaa yonent bi sallallahu nit nekk ci mu lu jafe waaye ay bidaa ñoo tasaaroo wa moom njub mu ne am porit la moo xam ne wa am por la mooy loo for lam tulshe di nga xam ne yéebaane ko mu ne daa njub moom daa meloon ni rek loo xam ne dañ koo for ki ko for xamle wu ko ki ko réer la tamit yéebaane wu ko xam nga loolu moom du feeñ mooy njub kon kenn gisu ko woon fenn rek waaw kenn gisu ko woon fen wa sunnatu sunna yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam algarraau bay aji leer sunna su leer soosu nga xam ne ni dafa weex algarraau waaw al agar mooy jébbu algarra mooy sunna si nga xam ne dafa weex mel ni lu jébbu yonente bi saa sallam mu doon wax naan taraktukum ala mahajjatin bayda layluha ka nahaariha bàyyi naa leen ci yoon wu jub wu leer naññi guddeem ak bëccëm ñooyam kepp mooy yoon wi lépp a leer waaw layluha ka nahaariha laa yazigu anha illa haalik mooy képp ku ko jàdd rek da ngay alku mooy képp ku wàcc yoonu sunna képp ku wàcc sunna mu ne kooku fa ngay jëm mooy da ngay alku ndaxte la ngay topp mooy ay bida moo tax mu ne wa sunnatu sunnata mooy yoonu yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam algarraaw bay aji leer mu ne xafrun àll la moo xishin bay aji wéet maa fii de di ca nekk min haadin benn aji gindi wala min muhtarin du caageen aji sàkku ku ko gindi mu ne sunna su sunna su weex soosu nga xam ne dafa leer ñi mu ne boo koy jàpp dafa mel ni ab àll rek àllaf kerte nekk nga xam ne amul garab amul ay montagne amul dara loo xam ne mën nga caa jëlee gindeeku maanaam mën nga caa jëlee li ñuy tuddee repère xàmmeekuwaay wàll boo xam ne suuf su tàlli kese la amul garab amul jànji amul dara lu lay xamal ne fii kat mën nga fee xàmmeekoo lii wala nangam kon mën a sunna noonu la meloon àllab kerte nag boo xam ne dara nekkul fa du ndox du garab du janji du montagne du dara kon amoo fa repère kon sunna tamit noonu la meloon rek àll bu wéet boo xam ne gisoo kenn ku naan la kaay ma jàngal la sunna kaay ma teg la ci yoonu njub waye far giso sax ko xam day ñëw naan man kat damay wër kuma xamal lan moy sunna kon sunna dafa deewoon giso ko koy xamle giso ko koy jema xam sax giso ko koy jema xam mune nashibat bi dabaiha maxaalibu daygamin min mal fi al'adat aad mihradi mune nashibat ngadamuna wala langamuna wala ñapuna moy ñàpp mooy nga ne ñàpp ci dara rek bañ koo bàyyi ngaddaamu ni koy wolof di waxee kuy waaj a daanu bu jafandoo ci dara loolu la ñuy tuddee ngaddaamu wala ñàpp mu ne nashibat ñàpp na wala ngaddaamu na wala ngoy na bi dabaayaha ci ci ñaari pëdëgu sunna lan moo ca ngoy maxaalibu dayramin ngëdduy gaynde aadin gaynde gay aji noonu mexradin gay meraakoon mooy gu bëri li muy mer loola nag mu ne miin min malafil aadaati laala mooy miinuwaayu waayu aada yi gaynde googu may wax dama ma ci gaynde dëgg-dëggal waaye aada yi moom la niroole ak gaynde goo xam ne dafa noonu sunna ba pare mere ko mu ne nag gaynde googu te mooy aada yi nga xam ne moom lañu ñu miinoon muy cosaanu bàyyee ki maam mu ne yooyu nga xam ne dañoo noonu sunna mere ko ngir li leen sunna di leen fi jële mu ne yooyu ñoom dañoo ñëw jàpp ci ñaari pëdë gi sunna moy al adud ad dabu moy al adud dañu ñu jàpp ci ñaari përëgam langaama mako di xex ak mom pour jëlé fi sunna waaw min ma'lafi al adat la la moy min wayu adé xam nga nit ni lélé liñ min inna wajadna abaana ñu bari loolu la ñuy wax aada yoo xam ne day leneen dafa ñëw safaanoog li nga xam ne mooy téere bi yàlla bi ak sunna yonentam bi sallallahu alayhi wasallam waaye nit ñi mooy ci rek nit ñi ne ci ñàpp ngir miin guñ ko miin ndaxte ay bàyyi ak maam ci lañ nekkoon donte dafa wuuteel alxuraan ak sunna sax waaye nit ñi dem na ba sax ci ñoom pour jëlee ko ci ñoom sax problème bu rëy la moo tax dañuy nettali xaw ma wér na wala wérul di wax ne am na mag mu daan wax naan dëkk bi aada bu moo fi daan li nga xam ne mooy diine loolu musiba la dëkk bu mel noonu nga xam ne dëkkub jullit la ñi ne la aada moo fay daan diine la chaque dëkk boobu euh, lu bëree bëri war nañ ko defaraat kon ba boobaa ku nekk war koo tàmbalee ci boppam fexe ba yàlla gënal ko boppam yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam gënal ko boppam te loolu du ci ay wax kese waaye mooy ñi teg loo xam ne ne ndigali yàlla la ak ndigali yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam mu wuuteeg sa bànneexu bakkan wuuteeg aadaay maam waaye nga topp la nga xam moo jógee ci yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa moo tax yonentam bi doon wax ne ngëm ak kenn ci yéen du mat loolu ma gënal ko baayam ak woy ak ay yaayam ak ay boppam mooy bu yàlla santaane sa yaay santaane mu wuuteeg li la say wayjur sant wuuteeg ndigali yàlla ak ku la ko sant wala sa bànneex bëgg dara mu wuuteeg ndigali yàlla ndigali yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga tànn ndigali yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye du ci ay woote woo kese ay jëf la mu ne wamaxal mixaaqu buduraha fatakannafat muqalannuha zalmaau leylin sarmadi mu ne wamaxaa far na effacé na al mixaaqu ndeyteel ndeyteel mooy bu ñu demee ba weer di weer wi li ñuy tuddee weer wi dee na weer wi di waaja dee noon ñaar fukki fana ak ñaar ñaar fukki fan ak ñett nga xam ne foofu dañuy wax ne weer wi day deseeg jant bi jant bi daal di muur leeram nga effacé ko ndaxte jant baa ko ëpp doole loolu la ñuy tuddee almihaaqu ndeeteel wa maha far na almihaaqu ndeeteel buduraha weeri sunna buduraha weeri sunna fatakkan fatakkan nafat mu diggu walla mu ndàmb mu peeg zalma u leylin lëndamaayu guddi sarmarin guddi gay aji sax mooy guddi gu dappetu mu xale nuha nagi bëti xel yu selli an nuha jamalo ci an nuhiyatu mooy xel mu sell mu xal jamalo ci muqalatun mooy bët bi yëpp rek mu ne ndeeteel li te loolu lim ci nam rek mooy réer ñëw jëlee fi daal di sunna bidaa ñëw jëlee fi euh, bidaa ak réer googu moom la nirale ak euh, ndeeteel weer weeram yi weeri sunna mooy xam-xamu sunna bi wala boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon jàngale sunna réer daal di ñëw jëlee fi leeru al leeru sunna léegi nag lëndëm ak réer lëndëm ak réer te moom la namm ci guddi gu lëndëm googu nga xam ne moo fi sax mu ne mu ñëw nag toog ci digg xelu xel yu sell yi nga xam ne nit dañ daan jëfandikoo seen xel mu mel léegi nit ñi seen xel yi moom kenn jëfandikoo tut xelam waaye ku nekk daa topp bànneexu ba kanam waaw ndeeteel mooy raafu xam ak ñooñ xam-xam ne bidaa moo fay samp ak réer moo fay samp ak boroom xam-xam yi jógee fa sunna jógee fa nit ñi nga xam ne ñoo amoon xel kenn jëfandikoo jëfandikoo xelam lëndëm ak réer ñëw ferenkulaay seen digg xel yi mel ni seen xel yi moom dootu ko jëfandikoo moo tax mu ne wama ha far almihaqu ndeeteel budura ay weeru sunna fata kan fat diggu wala fata kan nafat peeg fata kan nafat ndàmb waaw mooy mu wër ko ndomb maanaam muur ko zalma u leylin lëndmaayu guddi moo muur muqalan nuha nagu bëtu xel ya mooy xel yi daan xalaat moom léegi xalaatatuñ wa afat aasirul hawa atharaha fastafhamat an nashirin aw munshidi mu ne wa afat mu daal di far a aasirul hawa effacé far aasirul hawa celli weeri bànneexu bakkan celli weer yaa moom bànneexu bakkan la aasir jamono ci aasaaroon mooy li ñuy tuddee celli weer wala celli mbeer saalum celli weer la ñuy wax aasirul hawa celli weeri ban celli weer yaa moom bànneexu bakkan la aathaara jeexitu sunna mooy mandargaay sunna ngelaw yi bànneexu bakkan celli weeri bànneexu bakkan moo ñoo effacé mandargaay sunna mooy nit ñi daal seen bànneexu bakkan lañ topp bàyyi li nga xam ne mooy sunna fastabhamat fastafhamat mu daal di lëm am naashidin walis aji yéebaane aw munshidi wala aji xamle aw munshidi wala aji xamle maanaam li mu wax mooy bi nga xam ne nii bànneexu bakkan ngelawal bànneexu bakkan ñëw na effacé mandargaay sunna jeexitu sunna mu ne léegi nag mbir yi tëju amatul kenn mbir yi tëju amatul kenn koo xam ne day ñëw di xamle lan mooy sunna wala am ko xam sax day ñëw di ko sàkk mooy li mu waxoon rek maa fihi min haadin wala min muhtadi fastafhamat mu lëm mooy mu tëju an naashirin moom sunna mu tëju an naashirin walis aji yeebaane aw mun munshirin wala aji xamle maanaam ba nga xamee mandar mandargaam yi nag tëju na mu ne mandargaam yi kon effacé wu na mandargaay sunna mu ne nag léegi sunna daal di lëmu mooy mu jafe tëju istafhama mooy mu lëmu mooy mu tëju rek am naasirin amul kenn koo xam ne day ñëw di yéebaane mooy ku koy xam ku koy jàngale aw munsirin wala koo xamante ni daf koy daf koy daf koy daf koy xamle al munsid mooy ki nga xam ne dafa for dara di ko yëgle naasit mooy ko xam ne dafa réerle dara di ko sàkku kon amul koo xam ne day ñëw di sàkku xam-xamu sunna aw munsidi wala koo xam ne sax day xam le sunna maanaam ku koy taalibi bu koy jàng wala ustaas bu koy jàngale di ko xamle mu ne loolu sax moom amatul sunna daal daa tëju léegi kenn amatu ci dara mu ne wastawsaqat aydi lgawaayati wal hawa bi azimmati l albaabi chullat min yudi mu ne wastawsaqat daal di langaamu ngaddaamu mooy jàpp bu dëgër aydi lgawaayati loxoy réer wal ak loxoy bànneexu bakkan jamono ci yadin bi azimmati l albaabi ci noskaay xel ya azimma jamono ci zimaam mu ne chullat yal na làggileef min yudi yooyale loxo mu ne nag di loxoy réer ak loxoy topp bànneexu bàkkan maanaam daal lim ci nam rek mooy réer ak bànneexu bakkan mu mel ni dañoo am ay loxo mu ne ñoo ñëw jàpp ci laxab azim ma jamono ci zema mooy buum yi nga xam ne ñooy womat daaba yi ku jàpp ci buumu xel yi mu ne nag loxo yooyu noonu day yàlla nañ làkki loxoy réer ak loxoy bànneexu bakkan yooyu nga xam ne ñoo jàpp ci xelu doomu aadama yi mel ni ñoom ñoo leen womat fu leen neex mu ne loxo yooyu maa ngi ñaan ñi la ñi làggi ba nit ñi delluwaat ci li nga xam ne mooy njub moo tax mu ne wastaw saqat langaamu ngaddaamu mooy ay dil xawaayati loxoy réer jamono ci yedun wal hawa ak loxoy banex bakan bi azimatil albaabi ci noskaay xel yi mooy lahabi xel ya lu baab jam albaab jamono ci lubbun sulat mu ne yal na laa gilees min yudi yooyu loxo yudi jamono ci yedun ba tey mu ne wal almu dahin dhulluhu wa sadat tuqa qad summa wal ghayyu atala bi mujannadi mu ne wala almu xam-xam baaxin aji ceeñaagu la aji ñoreeku la zilluhu keram fii mahmahin yushji wala fii mahmahin yushjil bawazil daaxiya daaxiya mooy ca ndend ga mooy ceeñaagu rek mu ne wala almu xam-xam baaxin aji ñoreeku la aji ceeñaagu la zilluhu keram mooy xam-xam moom nekkatu fa xam nga bu fi dara lii am ker mooy daf fay nekk waaye loo ko ne amut mënta am ker kon xam-xam amu fa bay am ker wa sadat tuqa kadd aw kaddu ragal yàlla sada mooy boo waxee masalan tey boo ñëwoon ci teen nga tiim pindib teen ba yuuxu sa kàddu googu ngay yuuxu kenn du ko tuddee sadaade waaye kàddu gi aw awwaat xam nga da ngay déggaat geneen kàddu mu mel ni yow yaa waxaat wala léeg-léeg micro bi boo waxee da ngay wax ba pare sa wax ji di dellu siwaat loolu ñu tuddee as sada mu ne wax wa sadat tuqa aw kàddu gu ragal yàlla xat summa taxaleef na ko wal xay yu réer itala kawe na bi mu na di ànd ak ay soldara mu ne xam amatul kàddug raw aw kàddug ragal yàlla kenn déggatu ko maanaam kàddug ragal yàlla daal kenn du waxati loo xam ne day jëm ci ragal yàlla rek kenn du ñëw di waar nit ñi di leen ragal loo yàlla kon aw kàddug ragal yàlla kenn déggatu ko mu ne réer nag moom léegi moo fi kawe ànd ak ay soldaaram réer moo fi nekk bànneexu bakkan ak yéen àndal yëpp nga xam ne mooy encouragé réer réer kon ñëw samp ànd ak ay soldaaram xam nga réer moom day jur ay musiba ñii ànd ak moom mooy ay soldaaram mu ne fa kachafta jilbaabal jahalati an sana badrin li saimati dalali mu naddidi mu ne nag yow ibnu nasir ba nga ba tey ba nga ñëwee fa kachafta nga daal di huññi nga huññi jilbaabal jahalati mooy nga dindi huññi mooy dindi jilbaabal jahalati jàllaabe mantoob réer an sana badrin walis leerug weer mu naddidi ngay aji tàqale mu naddidi ngay aji tasaare li saimati dalali ñeel gé gétt réer wala mboldeem réer wala caawoog réer saa ma mooy gàtti gëlëm yu ànd mooy gétt wala mbolde mooy gàtt gëlëm wala euh, caawo caawo mooy sàmm mooy gëlëm yi euh, gàtt yi ànd noonu rek mu ne bi nga ñëwee li nga réer mi nga xam ne dafa mel ni moo jëloon ab mantoom daal di koy muur ba samp fi mu ne manto ba yow da dindi manto ba réer la ko dindee nag mooy leeru gu weer goo xam ne dafa ñëw tasaare mbooloom réer mu tasaaru mu samp woon maanaam réer nga xam ne dafa sampoon ay géttam mooy mbooloo rek saa moom mooy gétt mooy mbooloo mu mel ni nag réer dafa amoon gétt gu réeréeréy mu ne nag yow yaa ñëw daal di koy dindi ak leeru gu weer mu tasaare réer réer nga xam ne moo fi samp woon bari lool mel ni ak gétt moo tax mu ne fa kashafta nga huññi nga ñori jilbaabal jahalati jàllaabeeb réer mantoob réer am sana badrin nga defee ko nag ci leeru gu weer بمندد جاي اجي تسار جاي اجي تقل لسائمة الضلال نيل جت كرير ولا مبولو مرير ولا جد جد جد كرير بل لأمس بل ضوء الصبح بل نهار ناسخ اياته ليل الشكوك زردي خم غرفة واني مونكو دفي تي لير غوير موني بل لأمس ضوء الصبح لير جي لير في جيلي ريسا فور لير غوير واي الصبح لير سبلا bal li am sax nahaarin leer ak bëccëg la ndaxte leer ak bëccëg moo gën a foor leer ak suba leer suba moo gën a foor leer ak weer moom tamit kon li ko defee sax moo gën a kawe leer ak weer waaye leer ak suba la ba mu yàgg mu ne leer suba sax dugg ko waaye leer ak bëccëg gi la ga ngay aji folli ayaatu ay kaawteefam mooy ay ay mandargaam ayaatuhu ay mandargaam layla shukuuki guddi yaa moom sikki sàkkale azurradi yee way xoje guddik siki sàkka leela shukuuki guddi yaa moom sikki sàkka wala nga ne guddik sikki sàkka azurra di yeewee xoje mu ne bi nga ñëwee da ngaa jëlee réer fii nii waa yaa ngi ko defee ci leerug weer ba mu yàgg mu ne yaa ngi ko defee ci leerug suba bal yaa ngi ko defee ci leerug bëccëg nga nga xam ne nii ba mu ñëwee daa fooli mandargaay mandargaay naasixin gaa yi ji folli ayatu ay mandargaam maanaam leer googu noonu ay mandargaam ñoo fi jëlee guddi yi sikki sàkk guddi yooyu nga xam ne ni moom la nëri rek ay sikki sàkk yi nit ki nekkoon nga xam ne ni ay réer ay caaxaan nga xam ne ay sikk rek la nga xam ne ñoo ñëwoon xoj nit ki ba xañ ko mu topp yoonu sunna ba xañ ko mu topp yoonu alquran ba xañ ko mu topp yoonu njub mu ne yow yaa ñëw jëlee fi guddi yooyu nga xam ne guddi yi sikki sàkk mooy réer ak yim àndal nga xam ne ñoo xojoon nit ñi azurrat yay way xoj nga xam ne dañoo bokk nit xoj leen xoj mooy nga jàpp nit ki doxam ba xoj ko mu ne na yooyu noonu yow yaa ko fi ñëw jële yow fi ñëw jële yooyu yow ibnu nasir euh, moo tax mu ne balli fi nekk daw yi subin leer ak suba la balli am sa nahaarin leer ak bëccëg la naasxin ngay aji folli ayaatuhu ay kaawteefam mooy kaawteefi euh, maam kaawteefi leeru bëccëg layla shukuki guddi sikki sàkk azurra di yeewee xoje maanaam yi leeru bëccëg googu te mooy xam-xam boobu mu yor nga xam ne day dellu ci alquran ak sunna mu ne xam-xam boobu ak njub googu moo ñëw génne fi euh, sikki sàkk yooyu nga xam ne dafa meloon ni guddi nga xam ne dañuy xoj nit ñi yaa ngi dégg ibnu nasir moo ko fi jëlee ba nit ñi teguwaat li nga xam ne mooy yoonu alquran ak sunna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi